asalaamaaleykum man la monsieur Amadou Lamine Dia bokk ci comité inter ILO bu CITAPIX waaw cest dire euh, dañuy ñëwoon fii waa dañuy xëy fan yële ci ginnaaw ay nit ñëw fi commencé dagg suñu tali yi ñu ñu ñëw interpellé ñu ne ñu fii dafa am ay eaux usées yu ñu fi war a jaarale ñu ne yëg ñu ne maire yi yëg na ko ak état du ak ak état du Sénégal le préfet est au courant bi ñu jógee foofu ñu dem maire demande renseignement. ñu demandé renseignement ñu fekk secrétaire général municipal bi Moussa Fall mu ne ñu ah moom yëgul yëgul euh, information boobu fekk maa ngi ànd ak délégué Sall ñu ñëw ñu ne gars yi comme que ñun yow suñu autorités yi nekk fii yëguñu ko amul benn délégué de quartier bu ko yëg arrêté les travaux ñu arrêté travaux yi quelque temps après ñu jël seen bagage ñu dem ñu toogaat à un moom moment aussi ñu ñëwaat commencé dagg tali ñu bi ñu commencé dagg tali bi ñun dañoo def un un constat d'huissier la ñu am dañoo huissier mu ñëw constaté ko ñu demandé des informations ñu demaat troisième fois ñu jaare ñoom par le derrière jaare ko par la VDN la génn dem foofu di fa laal benn affaire ba laal fa benn tuyau mooy tuyau bi nga xam ne moo gën a mag ci APIX nga xam ne ndox mu salte mi génn APIX yëpp lépp à la foofu lay jaar di dem centre d'épuration bi pour être traité ñu mun ko verser ci géej te loolu mooy moo yore canalisation bi yëpp léegi bañ ko laalee ñu waa ñu génn ñu ne leen lan la ñu woo waa waa ji le gérant de l'ONAS bi nekk ci station bi bi mu ñëwee mu ne gars yi kii suñ ko réparé wul tey tey tey tey tout le réseau là dafay dafay dafay dafay dafay défectueux day yàqu lépp day yàqu te fii Abdoulaye Wade a investi 43 milliards parce que fii amul fosse lépp fosse la lépp ci kii lay jaar canalisation yi dem dem déverser ci géej waaw préfet na ko noo noo lii mënuñu ko def tey dafa guddi waa ji ne ko non non non tey quel que soit alpha yow préfet nga mais man kii sama responsabilité la nekk arrêté dañ koy defar tey ci la woo son chef qui est à Dakar un certain monsieur Mendes Mendes entre ne ko réparer ça parce que sinon vous allez engager votre responsabilité ci la ñu nekk fii di ko defar ba ay deux heures du matin trois heures du matin pour réparer ko mais ñun on s'est dit que même avec la réparation là y a plus de garantie pour cent pour cent parce que d'abord yàqoon na dagg nañ ko te ndox mi ni dafa am doole et puis waxuma loolu sax mais amul étude de faisabilité amul impact sur le sur le plan projet amul impact même environnemental te li fa jër yëpp dafa dafa ci lac boo xoolee lac bi fu nekk nii boo xoolee même l'immigration des oiseaux là da ngay xool euh, les les pélicans là dañuy ñëw foofu di lekk ci jën yi parce que ñoom jën rek la ñuy dundee boo xoolee aussi am na ñoo xam dañu fay napp di dundee yooyu yëpp ça peut être un problème vital ci problème santé yi dafay impacter la santé des populations donc ñu foofu la ñu ñu ne léegi nag par exemple tey lii bu ngeen forcé woon par exemple bu dugg biir APIX ba laal fi suñu réseau ñu fan lañ jëm parce que déjà de un mooy dafay am retour néfaste dans les maisons te loolu ñu du baax suñu dëkkuwaay bon donc aussi ñu ne leen de la décentralisation bi moo ñu may ñu am de regard lépp lu ngeen fiy def dañ koy xool parce que ñun dafa am benn téere bu ñu tënk muy le PAR le plan d'action et d'aménagement et de réinstallation des des populations parce que waat bi mu yëkkatee le projet là dañ doon toog ak moom di discuter bu xool conditions yi nga xam ne yëpp mooy améliorer affaire bi ñu koy discuter di ko discuter ba trouver un accord mu ne la page 110 la page elle est def lépp quel que soit de bord que ce soit quel que soit l'état du Sénégal ak ku mu di doon bala nga affaire da ngay projet c'est bon s'ils adhèrent pas au on va essayer de trouver des voies d'autres voies de et bi jox ñu jox ñu acte ñu mën def la présence acte actuelle et pour ce projet là nous prenons à, à, à, nous engageons la responsabilité de l'état du Sénégal ak la BAD BAD nga xam ne c'est c'est pratiquement le waaw le seul financier bi nga xam ne moo yore projet bi parce que bien le CAMES 3 mais ñun le projet bi ñu ko waxee dañu ne c'est c'est un projet très louable kenn mënu ko bañ parce que ñëpp xam nañu au niveau de de la du du Cap-Vert on a des problèmes d'eau mais dañ ne il faut mu am ay études ba ñu jëlee projet bi ñu ne foofu ñu woo ñu réunion au niveau de la préfecture de Sangalkam ba ñu demee ñu toog gars yi expliqué ñu ne pas des techniciens mais on a des ingénieurs kon a un comité technique. On va prendre le projet, on va aller en, en commission technique, on va discuter en commission technique. Les gars, ils nous ont envoyé le plan de, de, traçage. Ils ont envoyé un plan de traçage. Mais les techniciens, ils ont dit c'est juste un linéaire. Bon, nous avons tracé les phénomènes de Mais on une étude approfondie pour dire un projet exactement là, là, moi, je Donc, nous, il faut que les gens habitent. Comme vous savez, c'est les meurtres d'œuvre. parce que aussi mu leen ñëw fii di tâtonner parce que gars yi da ngeen ñu naan dañuy def sondage parce que tâtonnement boobu moo indi par exemple ñu ñu ñu ñu ñu suñu suñu suñu suñu canalisation yi te loolu dafay nekk loo xam ne dafay retombé ñun bay population te ñun dañu am droit de regard et de suivi sur ce qui se fait au niveau de la cité bon parce que ñun bu ñu ñëwee bi ñu waxee dañuy wax dem euh, au la SONES ñu ne ñu léegi pour ça si vous ne voulez pas du projet il faut vous adresser au niveau du directeur général de la SONES. Nous avons fait une correspondance depuis le, le 7, le, le, 9, le, le 9, le 9, eh, on a le 9, le 9 juin, on a avisé le, gouverneur de Dakar par équipe. Ils nous ont déchargé la, la, la Après, vous prenez ça. Nous bindons le, le sous-préfet. Bon, encore, on a bind parce qu'avant, on a fait un compte rendu. Mais après, on a fait un parce que dama ne ko war nañ population yi population yi il faut revoir le tracé de préférence su nekk parce que impact bi dañuy bañ mu mu yegg benn degré bi donc on est retourné à lui mais il c'est surtout le préfet il fait du forcing parce que dama ko wax ma ne ko mais yéen pourquoi pas un autre tracé mu ne ma non c'est pour vous ultérieurement en eau usée en en eau potable ma ne ko d'accord ma par exemple parce les techniciens ont dit que am nañ déjà un réseau yi dañ ne par exemple c'est comme bu perfuser quelqu'un veine bi jam mu baax boo jamee ci tànk bi day dem ci veine bi boo jamee ci loxo bi foo dem wala donc même à partir des alentours on peut nous brancher su fekkee dañu bëgg a yokk suñu capacité en eau donc c' pas possible que ñu war a mën a jaar ñu xam ne ñun lii ñuy def nii c' est parce que on a un droit ça un droit légalitaire que nous imposons et que boo xam ne ñu droit pour taxaw pour valider ko c' est notre droit c' la constitution qui et nous sommes légitimes. non ta tâtonner yàq suñu réseau bi parce que ak suñu tali parce que même au niveau de euh, l'Ageroute le technicien dafa ne fii c'est des routes extrêmement modernes et de dernière génération ça coûte extrêmement cher et puis ça c'est l'argent du contribuable sénégalais sama xaalis sa xaalis ñun ñi yëpp ñooy koy fay tey dafa am benn affaire am c'est une chance pour le Sénégal c'est pas pour nous les populations de l'Afrique mais toute population dafa war a taxaw pour sauvegarder ce bijou là parce que bu nii la ñu war a defaree dëkk yëpp plan bi Afrique Sud la njëkk am mais dañoo jël imperfection yi am foofu ñu rectifier ko fi ça c'est le dernier plan de dernière génération plan bi sax yeggul parce que malheureusement le président est tombé gars bi bu ko mettre les oubliettes bon bassin yaa ngi nii dafa waroon di dem ay taw rek la loolu bi dafa waroon jaar foofu di déverser wu directement dem géej mais malheureusement non suñu mooy que ñun la lutte xam nga parce que ñun suñu environnement direct la parce que ñun ci ndox mi dans des zones inondables on connaît si on est venu ici c'est une chance c'est une aubaine pour nous les ay nit jóge fële ils sont pas ils sont pas comment ils logent pas la cité ñu ñëw yàqal ñu ko dem seen yoon ça c'est notre cadre de vie advienne que pourra mais lu mu leen jaral dafa ñu koy jaral ah ah ah ça c'est ça le problème état bi nag moo ñu war a protéger mais su fekkee aussi dafa gën dóor ay doomam dàq ay doomam kooku affaire am la ñun les techniciens que nous avons nous n'avons pas rejeté pour rejeter on a fait des propositions parce qu'ils sont sortis à bonne école ils sont sortis à l'école polytechnique de Thiès il y quatre qui sont là mais bi ñu leen waxee dañ ne bon par exemple on euh, yoo xam ne jaarale projet bi mu def foofu xam nga mais c'est parce que état la d'accord dañuy ñëkk pourquoi ñuy ñëkk il faut aller à l'écoute des populations on parle d'administration de proximité nekk duñu administration doole on n'est pas dans un empire on est dans une république ah dama ne ñun ay doomu citoyen sénégalais la ñun rey mais kenn du ñu déshonoré. on nous tue on ne déshonore pas. on ne déshonore pas. Ah, on s'est engagé pour pour AFIX suñu bakkan lañ ci teg il faut que les gens le sachent mais nag on est ouvert au dialogue dañuy waxtaan ak nit ñi mais qu'on respecte les populations de la cité APIX et puis dafa am benn affaire bu gën a garaaw on nous a déplacé depuis 2010 actuellement on est à 2022 amul fi kenn ku am kayitu këram l'état du Sénégal fay fii. di jël ay nit yoo xam ne xamuñ fu ñu jógee ak divers horizon di leen jox ay boo ay paa bi nga xam ne dañoo toj yi xam nga ci ay këyit ay nit ñu jógee fële ñëw bokkuñ ci projet bi ñëw taxaw na ñoom dañuy jël kër jàmbur yi loolu pour lan la xanaa ñu nekk ñu Sénégal ah et puis dafa nekk site de recasement un site de recasement c' est destiné à type de population mooy ñu nga xam ne les grands projet de la dafa leen laal ñu war leen indi fii loger leen ku dul un impacté de l'autoroute à péage wala Pikine Illogique 2 waroo am fii kër même le président teg teg ci ko koo tënk mais ñoom ils veulent faire du forcing dañu bàyyi suuf si ñu jël. jaay